wax ci Petite Côte ak li ko wër olof Njaay ne ki ko mën a ki koy jéem duñu benn kan moo jëm ñalig le 15 mai sëñ Fallou lig li ko laay ka jëlee woon abbe jama kun Casamance delloo si ko Ndakaaru ànd ak moom ni ko jàmmi Sénégal laa bëgg waaw def ne fukki fan ak juróom ci weeru mai laa jëm ñani muy lutte traditionnelle teg fa ñetti million ñun sëñ Fallou ni ko laa mu ni Adama Jali ndaanaan bu mag bi nga xam lu maye def ak Xadi Juuf daan wax bés bi Ama mi nga xam ni moo war a dajeeg Modou Lo day dikk bàkku si ñu ni nit ko dara jaale mu ni màggat seen meeru Malicounda ndaanaan boobu nga xam ne département Mbour moo ca man rafetal ab liggéeyam gëm président Macky Sall gëm Petite Côte moom la Luc Nicolas di delloo njukkal ànd ak waa ñaan dégg seen baaraam ma dem te ñëw ceey gaa yi Luc la ndaanaan di jaar xaw ma ko c'est ça la réalité ba ndax loogu mais xaada Daal ñu eh, maa ngi lay fay maa ngi kontaan ci yow di kontaan ci internet yi si producteurs yi yëpp di am de vraiment daje ak yow fii ci ñeneen eh, ci stade municipal bi ñu war waxtaan tuuti ci am li nga xam ne moom la ñu jëm le 15. incha allah incha rabbi mu nekk eh, bés boo xamante yaakaar naa ne nar nar na riche si culture waaye nar na riche tamit si sport waaye pourquoi le choix de Maguette Sène. waaw le choix de Maguette Sène du dara mooy parce que Maguette xam nga aussi doomu Euh, vraiment euh, di def liggéey boo xamante ne nii liggéey bu mucc ayib la euh, parce que ñëpp xam nañ ne c'est le meilleur maire des maire mu nekk koo xam ne comme tu l'as dit tout à l'heure dafa yëngatu ci wàllu social gis nga léegi bi ñu jógee ci sage yi nga xam ne ci seen penc bi bi leen fu fekkee gis nga témoignage bi ñu def ci moom jeunesse bi tamit gis nga témoignage bi ñu def un peu partout vingt-deux villages yëpp foo tourné rek da ngay gis ñëpp di def seede boo xamante ne nii seede bu rafet la parce que tamit moom dafa taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu mucc ayib la euh, vraiment mu nekk koo xam ne kenn merewu ko parce que euh, dafa liggéey liggéey boo xam ne ñëpp teg nañu seen bët moo tax suñu xel dal ci moom ñu kontaan ci moom aussi bëgg ànd ak moom gunge ko ci liggéey bi nga xamante nii moom lay def fësal tamit li nga xamante nii moom lay def mm-hmm. parce que tamit nit ñi bu fekkee dañuy liggéey tamit war nañ ko fësal parce que waa góor tamit dina yokk ngóora donc loolu moo tax rek ñu def ko ñëwuñu def ko pour xaalis defuñu ko pour leneen parce que bu doon dañ koy def pour xaalis du ñu andi làmb bi njëriñ mais dañu ko def c'est parce que day doomi dëkk bi nekk suñu fierté am taxawaay bu mucc ay population ñaning yëpp Malicounda yëpp ànd ak moom di ko supporter déjà tout à l'heure gis nga bi ñu demee ci état civil bi gis nga euh, ñi ngi fa fekk maire yoo xamante ne nii génne nañ fa cosaan ñoom ñëpp def avant première bi daje fa ak madame le daje fa aussi ak directeur cabinet Mor Fassa euh, ñoom ñilaan ak ñëpp responsable yëpp ñëw teew ñi muy liggéey ñëpp nga gis vraiment taxawaay bi ñu fi taxaw bu ñu fa jógee tamit ñu dem ci saal yi gis nga pénc mi bi ñu fa ñëwee mu yaa ngi fekk mu fees del ñëpp taxaw ku ci nekk am yëg-yëg donc ñun dañuy tëgg làmb mais dañuy créer événement mm. te événement bi ñu fiy créer defuñu ko événement local événement national la ñu du ñu xeeb bés. dina riche màgg comme ku ci ñëwul di nga xam ne boo ko seetaanee ak boo ci ñëwul di nga xam ne. lii làmb la làmb parce que waxuñu ko pour faire la promotion du parce que xam nga koy jàpp jàndu faali jiin. Mm-hmm. mais yow xam nga ne incha allah ci kàttanu yàlla fii le quinze ku fi ñëw ku fi 16 heures fekkul. am naa yaakaar ne boo ñëwee di nga lijjanti fan ngay toog. di nga lijjanti si mm. bés ba tamit ñu jàpp si c'est vrai Ama Baldé dina ñëw te am na lu mu wax Modou Lo nee na ko bu fekkee li ngay wax dëggale ci yow nag ma fekk ñani euh, ñu def première partie mbapat donc xamuñu ndax Modou dina ñëw am de mais Ama moom dina ñëw te moom xam nga ne moom lépp mbër a ngi ci moom donc dina ñëw bàkku si ku mel ni Doudou Ndiaye Mbengue aussi dafay ñëw def prestation ak groupe am day faatu Adama Diallo mooy woy làmb ji Maodo Faye moo koy tëgg mu doon mise 3 millions donc màgget seen ñu dara jaale ko mu nekk nag bés boo xamante ne nii euh, vraiment xam nga Maguette Sène moom bésam du tuuti lii euh, aussi yow yaa mu gën a xam ne li Nicolas Enko ñoom it <laughs> ñun suñu bés du tuuti ñaar ñooñu nag bu ñu àndee xam nga ne ñu ci bés li ñuy ñaan daal mooy yàlla yóbbuñu ci ñu tal ko te fekke ko yàlla lafal ñu cat ba ñu fekki bés bi créer benn fête pour commune Malicounda yëpp ñun ñëpp ñu ànd bég feetu vraiment def loo xamante ne nii cosaan daf ciy feeñ. am incha allahu rabi am lu xew nag Sénégal wala am lu xew ci làmb ji wala lu si wàllu si ñaari avance ñetti avance Gaston gis nañ ko yaramam dafa tàng mu nga jël ay mbër mu ne Ama Baldé a ko engagé mu nekk sous contrat ak yéen nee ne bëgg na ko jox avance loolu noonu ayow en tant que coordonnateur Luc Nicolaï ko ban yan leeral nga mën a ànd ci loolu. ah bon yooyu moom du ma ci wax. parce que tamit euh, làmb ku ci nekk yaa xam aussi ni ngay liggéeyee yaa xam aussi ni ngay doxalee si si liggéey mais ñun daal li Nicolas Enco ñun li ñu concerné mooy euh, combat yàgg nañu ci làmb lu tey lañu ñu euh, organiser làmb parce que vingt et un ñu ngi organiser làmb ñu ngi créer ay contrat donc xam na nan la ñuy defee contrat ñun mbër boo xamante ne nii engagé nañ la yow doo am droit sax nga wax ci beneen rajo wala ci beneen télé. wala nga dem feneen foo xamante ne nii ñun déggoowuñu ci ànduñu ci. kon donc ñun yooyu duñu ci wax de toute façon daal ñun combat bi ñu am muy combat Modou Lo Ama Baldé nga xam ne c'est le seul et unique combat boo xamante ne nii presque depuis presque vingt ans ci gannaaw. non mën nañu wax vingt ans parce que fii xamuñu ñoo créé woon Balla Gaye euh, Modou Lo c'était le 10 mars euh, euh, c'était. 2010. 21 mars 2010 donc ñoo ko tëggoon mu nekkoon événement mais combat bi dafa uute ak combat boobu parce que combat bi li ci nekk xam nga dama waxtaan ak benn góor keroog ma ne ko mais ci année yu ñu génni ban combat nga gis boo xamante ne nii moo am dayoo combat Modou Lo Ama Baldé mu ne ma maa ngi rappelé wu le 2 février 1969 bi Robert di daje ak Mbaye Guèye nga xam boobu Robert dafa doon champion daal ñëpp Mbaye Guèye jógee armée en 68 mu ñëw xeex ak saa njàmbur ñu tudde ko Tigre de Fass 69 mu ñëw di renverser Robert di ko dóor mu daanu donc yow xam nga ne Modou bi muy ñëw euh, en kenn gëmu ko woon mhm. euh, nekkul woon dañ doon wax sax day am jafe-jafe ak poids yi mais il s'est battu il s'est engagé reyante tey xëy ba nekk roi des arènes Ama Balde di doomi Fallaye Balde nekk étoile montante gis nga fi mu jaar ak Tapha Tine gis nga fi mu jaar ak ki nga xamante ne nii euh, mooy Malick donc nekk ci yoon boo xamante ne nii tey jii man maay doomu Fallaye Balde rek doy na te Ama lépp mbër mu ngi ci moom. donc moo tax mu nekk combat boo xam ne même les observateurs yi nga xam ne tey ñu ngi ci milieu bi mënuñu ko sax analyser donc c' est le seul et unique et meilleur boo xamante ne nii tey jii moom moo fi nekk pour bu mën a delloowaat làmb. place am. loolu ñun l'essentiel man Ama jël avance ba ñu jël avance ñun loolu engagé ñun daal li ñu concerné mooy suñu combat bi ñu am te xam nañ ne contrat yàgg dañ ko def defuñu ko ren. waaw xam nañ loolu mais dañu gis ne gis dañ gis coow euh, juddu diggante Gaston ak Thialis parce que yor sa tamit di xool ba ba bañ engagé ko beneen contrat tamit yaakaar naa muy jur coow moo tax ñu bëgg maanaam ay leeral. non ñun nag ñun nag duñu duñu parce que Luc Nicolas Enco du ay fo ñun làmb yàgg nañ ci am nañ ci expérience euh, du loo xamante ne nii dañ koy soog a def tey donc yeneen problème yi ñeneen am ñun loolu engage engagé ñu et puis concerné wuñu honnêtement bëgguma ci wax mais ñun suñu combat bi ñu taxaw hmm. non attendons de voir ñun wax naa la li ma la wax kay junj kay na borom nii nee naa la mbër bi pour mu jóg dem feneen sax wax leneen hmm. sax kooku dafay dépendre ci ñun ñu waxtaane ko kon donc kooku kay ku la wax loolu kay li ci des waxaale na loolu mais parce que dañ gis mu wax ko def ko dañ ko gis mu def ko ci ay mbër jox leen avance ñu jël fi mu toll nii nag nee na Ama Baldé la tëgg la bëgg a tëgg ak Gris Bordeaux pour jox ko avance mais xam nga xam nga Boucar ñun hmm. régulariser nañ suñu combat donc Ama Baldé euh, Modou loo dem na CNG régularisé nañ ko donc c' le vingt cinq décembre incha allah ci kàttanu yàlla. bu yàlla nangu li may woon ñoom ñaar daanu daje. donc kay <laughs> combat régularisé kay kooku kay c' est déjà c' est tout tout est fait. non pour mu jotaat beneen avance loolu la ñuy wax. non ñun moom loolu engagé wuñu mais li wóor te woor mooy Ama Baldé ci boppam xam na ne am na contrant bu nekk ci moom te mu ngi nekk ci moom pour le vingt cinq décembre. donc kooku moom c'est déjà fait lépp teg nañ ko ci yoon jaar na fi mu war a jaar léegi attendons de voir xam nga am na fi jaar-jaar yoo xam ne ay mbër def nañu ko yenn yi ci contrant yoo xam ne signé nañu ko defaat leneen mais après gis nga li leen ci fekk mhm. donc loolu la rek mais tey yow yaa ngi ñëw fii jóge Dakar ñëw fii ñu war waxtaan mais am na loo xam ne tamit mënuma la ko tere mais am na loo xam ne tamit boo ko defee structure bi nga nekk wala entreprise bi nga nekk yow permettre la ko boo ko defee am na loo xam ne war na la ca fekk bu boobaa nag yow su bopp ndax léegi loolu daa ko def wala doo ko def mais ñun daal sunu lépp tegu na ci yoon régulariser nañ sunu combat c' est le 25 décembre incha allah ci kàttanu yàlla. incha allah kon di jox gars yi rendez-vous le waaw fii à Nianing di wax ne avec Ama Baldé hmm. Doudou Ndiaye Mbengue aussi euh, il est invité ñoom Khadim Samb ñoom Moustapha Gueye Lom de la quatrième génération le deuxième tigre de Fass ak ak ñoom Alaaji Ngagne Diagne tous les acteurs de la lutte télévision yëpp dinañ fi daje presse nationale beeg yëpp tout la presse en ligne te ñuy yëngatu ci wàllu làmb dinañu fi daje parce que ñun bu ñuy def du ñu def ak demi mesure ñun bu ñu tëggoon yaawu jaal ak yàmb sax dinañu fexe ba def ko événement parce que tamit loolu du ñun ñoo ko wax sénégalais yi ñoom ñoo ko wax donc kon je crois que ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla may ñu tal ak fekkee di ñaan yàlla aussi Luc am jàmm euh, le maire màgget seen am jàmm ñun ñëpp ñu daje fi le 15 incha allah ci kàttanu yàlla def une fête nationale pour la jeunesse de notre pays. ñoo kayit monsieur le maire na loolu tabax fii tabax bu mel nii boo génnee jëlal tabax bi rek doy na seede monsieur le maire kon damay wax ne Luc Nicolaï bu bés baa maa la xamal ne Luc Nicolaï bu ko midi fekkul ñeliñ du am place moom ci boppam bu ko midi fekkul fii du am place bu ñuy jógee ànd ak monsieur le ñu xam ne monsieur le maire am na waaye ñu ñu gërëm ñi ànd ak monsieur le maire eh, ñu leen di xaar fas yéene dalal leen jàmm. Mhm. fas yéen ci ànd ak population ñeneen bi yëpp mag ndaw di ñaan yàlla yit bés ba moom nu ko bëggee rek suñu borom jàppale ñu ci ndax bés bi nekk bés bu rëy nu ko bëggee ñëpp mën koo fekke hmm. waaw loolu daal en tant que borom dëkk bi ban taxawaay ngeen war a taxawoo nga xamante ne moo di Maguette Sène nekk seen maire nekk seen jiit waaw monsieur le maire de taxawaay bu ñu mën a taxaw moom rek mooy comme d'habitude jàppale ko rek ndax lii bu réussir mën naa wax ne ñun ñoo ñoo ci am ndam ndax it en tant que chef de village bu nekkee mbir mi ñeneen la amee yaakaar naa ne moom dinaa def lépp ak sama notable yi ñu mën a fexe ba neer maire man fe gën a amaat ndam parce que yàgg naa fee am ndam xanaa mu na a amaat ndam ca kanam Maguette ca kanam Luc Nicolaï loolu laay lancé appel maa ngi ñaan ñëpp ñu mën a tew bés boobu mën a ñëw fogole nuun fop in way simna nuun tongeɗana nuun jam fo ɓasil ne nuun Maguette seen a refa ref oxa andoona den fo xuja muta ngoyitna ka i mbara njaɓ ka den a ngoyta ngoy meeke ñaning a ngoyit njom maak Maguette Sene ka leye a buga fop a ngariid a teye iid njom ne yaam Maguette a refa ref kiino xa o kiino xa ando a faaxa a labira a buga ɓaslum Maguette waase in no saaxo leŋ Maguette no kuta refna a buga i ndef no tigaga kon koy a fi'angaan bes fa a koom ba o leŋ a yoq fop fata ngariid no njom ne a madiid njom ne jomde joom mbeluta ref ka jomde joom liik nicolas yo a ne'tina Maguette Sene nuno fogole fop fat nu teewid teen maxey gidma nuun to yakara nuun jerejef yaam xuja moom wax deg yala mat o leŋ jige ka te leyuna refa ngeer na gidman salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bu ñu nuyoo rek di leen ziar tey nag Lutte TV mu ngi ak yéen fii si Nianing fekk si fi nag suñu yaabooy boo xamante ne yaakaar naa ni ñu ko mën waxee rek le premier magistrat de la ville ki nga xamante ne rek moo di le maire de Malicounda muy Maguette Sène nekk en même temps DG COUD Luc Nicolaï Enco ànd ak structure am rek ñoom tons raay ba nga xamante ni te yaakaar naa ne l'inconditionnel raay ba ñëw maanaam seet si leen si si waxtaan si waajtaay si bés bi nga xamante ni tey rek mun nañ ne bésu feet la bésu mbëkk la Luc Nicolaï ak structure di ko def war ko amal fii si Nianing tey yaa booy gënaa bu ñu nuyoo rek ziar la baalu la ak waaw maa ngi leen di delloo ziar bi di leen nuyu di leen uh, leen gërëm di leen sant uh, ci uh, sargal bi ngeen bëgg a defal monsieur le maire Maguette Sène te promoteur Luc Nicolaï ñëw bëgg ko jagleel bés bi bés bi nag di bés bu màgg boo xam ne dañ ciy sant yàlla ndax euh, monsieur le maire dafa liggéey ci Malicounda liggéey bu mucc ayib surtout ci wàllu jigéen ñi ñu bëgg nag bés ba ñu màggal bés bi ni ñu koy màggalee mooy Malicounda 22 villages la 22 villages yi village bu nekk monsieur le maire dafa organiser jigéen yi benn kuréel bu mag bu ñuy wax réseau village villages 22 réseaux 22 réseaux yi réseau bi ci gën a tuuti 300 femmes la am village bi ci gën a tuuti réseau ba 300 femmes léegi ñu bëgg a mobiliser 22 régions. ñu ñëw fekk si jigéen ñi ñenn ñi nga xam ne programme bi fii la xewe man maay présidente fédération noor Njala nekk 700 femmes waaye ma nekk fi ak sama benn doom bu ñuy wax ma mi Diawara mooy présidente réseau des femmes bu ñenni moom mu yor 800 femmes kon ñaari couleur yooyu bu leen 22 village yi wuyisee bés bi bës bu màgg lay doon jigéen ñi Malicounda dañoo bëgg a sargal seen maire ci li mu leen defal. naka ngeen yaakaar ne tey noonu mën accompagner lu ko rawatina nag làmb ni nga ko waxee rek ay femmes entrepreneur di liggéey liggéey bu mucc ayib ak seen ak seen maire naka ngeen mën a def tey ba ñoŋal làmb rawatina euh, fii si seen gox parce que gis nañ ne facteur de boo xamante ni day ñi siy gagné mën nañ ne maanaam xaw nañoo bëri. waa ñun dañuy wax ne rek. lii ñun dañuy ñaan yàlla ñu fekke ko ak jàmm ndax xam nañ ne du yem fii ñun bëgg nañu suñu drapeau monsieur le maire bi nekk aada nekk aada mooy maanaam at bu jot ko Nicolaï ñëw fii tuddeewaat ñu ko ñu sargalaat ko moom ci boppam ak ñi mu àndal waaye sargalaat suñu meer ndax moom day liggéey rekk amul taxaw bilan bi ñu ma la defal nii. Mhm. bu déwénee bu ngeen ñëwee fii tëgg si làmb. Mhm. di ngeen fi fekk bi beneen bilan. ndax moom mhm. taxawul. day liggéey taxawul day liggéey. si foofu la tëjee rek parce gis naa ne mbër yi si nekk si localité bi yëpp xaaj bi yëpp gis naa mu recruter leen yóbbu leen fële au niveau de l'université pour vraiment engagé leen fa ñuy liggéey mu nekk ni ma ko waxee rek insertion boo xamante ni yaakaar naa ne loolu la xaar si leader emploi des jeunes lañu wax moom la président Macky Sall woote waaye daf cee fekk monsieur le maire Maguette Sène ndax moom si wàllu jigéen yi toujours laay njëkke ba mu defee yooyu euh, village yi nga xam ne demoon fa rek amul piste amul dara dafa xàll commune Malicounda village comme Taaxum comme Fandane def fa ay piste def fa ay poste de santé ndax jigéen yi dootuñu sonn di dem di def ay kilomètres pour dem mucc ba pare recruter ay sages-femmes xaarul état de dafa recruter ay sage femmes di leen fay def leen teg leen ci poste de santé yooyu kon xam nga jigéen yi Malicounda mënuñu fay monsieur le waaye si emplois des jeunes bi ma doon ñëw léegi président Macky Sall woote euh, Maguette bañ ko nommé kudd avant ñu koy nommé kudd sax ña mu doon àndal di politique yépp fexe na kenn ku nekk mu seet fu mu la dugal ngay liggéey di daan sa doole waaye ba mu demee kudd wax nga ko léegi mbër yi yépp recruté na leen yóbbu leen fa ñuy liggéey loolu du ñépp ñoo ko mën xolam bu yaatu xolam bu rafet moo tax mu def loolu ak topp digle président de la république bu fekkoon DG bu nekk foo nekk fu ñu la dugal rek nga recruter sa jeunesse jeunesse du jeunesse su Malicounda rek de jeunesse su département de Mbour ñoom ñëpp la recruter yóbbu leen kudd ñu fay liggéey kon li président Macky Sall digle màgget mu ngi ci ba mu jeex tàkk waa kon ñu lay jaajëfal di la jox rek ba samedi incha allah. incha ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ñoo ngi gërëm euh, Raay moom mi nga xam ne moo fi nekkal euh, Luc nikela ak yéen ñi nga xam ne yéen journaliste yi yéen a nekk ci seen chaîne bi di euh, Luc TV ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ndax li ngeen def ci liggéey bi la bokk ay jàmbaar ngeen. Euh, nekk sur le terrain ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant merci beaucoup. man maay Gnilane Sène responsable politique fii ñani nekk la panthère du maire Maguette Sène. la panthère du maire Maguette seen Luc Nicolaï ànd ak structure am fas yéene sargal Maguette seen fii si dëkkam tey naka ngeen fas yéene waajalee bés boobu noonu. xanaa ànd ci ak contentement rek ak mbégte. te naan lig na dalal xelam bu baax parce que Seyni Dóor moom lu mu song daan. côté boobu moom tiituñ. magget Sène moom. Mhm. nekkatul seen Sène Malicounda kese mais Maguette Sène national la. Maguette Sène national la côté mobilisation naka ngeen fas yéene taxawee bés boobu noonu ngir jëmal bés bi. pour mobilisation moom. Mhm. bu mhm. te daanuñ. monsieur le maire Maguette Sène pour mobilisation rek maa ngi lancé un appel waa Nianing ne leen lii ñoom ñoo ko moom lii du politique làmb la. li tuddee ko suñu leader tuddee ko suñu miir mair tuddee ko suñu njiit. maa ngi lancé un appel à toute la communauté toute la commune de Malicounda di lancer un appel waa Nianing particulièrement ñoom ñi nga xam ne seen dëkk la ñuy tëggee làmb ji incha allah le 15 incha allah le 15 man maa ngi tudd Codou Diop nekk militante APR di ànd ak Maguette Sène dëkk Warang ak madame la maire aussi taxawaay bi ci am daal mooy gunge suñu maire ba mu mat sëkk te xam nga ne maire fu ñu woowee ñu dañ ko wéyu parce que dafa mat maire nekk jàppale ñu yàgg ñoo jàppale ñu yàgg ànd moom xam ko moo tax may lancé appel bi di wax tous les réseaux de la commune de Malicounda ñu ñëw jàppale monsieur le maire ak euh, groupement Mbogoyaay bi nga xam ni madame la maire moo ko jiite ak réseau yëpp su ma limee daal damay juum réseau yu bëri yi mu créé bëri na dëkk yu fi nekkee may lancé appel femmes yi yëpp hmm. parce que jigéen daal ñooy doole ñooy dooleel maire hmm. kon maa ngi woo jigéen ñëpp ñu ñëw jàppale ko ci bësam bopp ndax bés du tuut borom lay tolloo te Maguette Sène tuutul hmm. monsieur le maire tuutul hmm. monsieur le maire national monsieur le maire de la commune de Malicounda le premier magistrat de la commune de Malicounda ki nga xam ne ba mu ñëwee ba tey ñun dañ ñuy gis fëpp ñu ñuy xam fëpp du ñu ràññee fëpp kooku daal ñu ngi koy ñaanal bës ba ñu fekkee ko ak jàmm. ci Maguette Sène moom wax ci moom. mën hmm. ñoo wax jeexal si moom parce que liggéeykat la jàmbaar la. ay jigéenam itam liggéeykat lañu jàmbaar lañu ba yaakaar naa ne seen bës bii tey bés bu taxawee. yaakaar naa ne benn defet di ci am parce que njëriñ kat mën nañ bu baax nag te am nañ ci yaakaar ci ñoom itam bu baax. ma di leen di sant di leen di gërëm ci turu population bi ngeen fekk fii ci turu sage yu Nianing yi ci turu itam délégation bi ngeen def ñëw fekk si ñu fii ci biir Nianing ñu di ko rafetlu te di leen di dalal jàmm euh, fii mu nekk nii ñun waa Nianing mën nañu ne liit Nicolas yorul moomul làmb ji waa Nianing nga ko moom ñoom ci seen bopp itam. fii ñu toggee nit ñu toggee noonu lañ ko rafetloo ba tax na ñoom ci seen bopp lu mu leen jëralul amul bëgg nañu ci d'accord nañu ci parce que Maguette Sène bi nga xam ne moo jiite commune Malicounda ñu ñu toog fii ci turu Benno Bokk Yaakaar biir Sénégal yi yëpp ñi ko représenté fii au niveau de Nianing <coughs> alhamdulilahi rabbi alamin ñu ngi koy rafetlu te di leen di wax ne fu ngeen ko namm ñun namm nañ ko fu ko raw ko raw waaw màgget jaral nañu ko liggéey na ko dunde na ko juddoo na ko ci biir dëkk bi kon foofu amul dara la nga xam ne euh, euh, am nañ ci xel yaa yaar déedéet amul ci benn bool fu ngeen jóge ak fu ngeen mënti jo ak nu ngeen mënti dellu su ngeen ñëwee fekk ñu sur le terrain on est prêt on est prêt à tout moment ci mobilisation fépp góor ak jigéen mag ak daw kenn kenn kenn am na sax ñi nga xam ne dañu ne loolu buñ ko buñ ko waroon na yàgg a def du tey kon loolu fuñ ko app raw na fa waaw kenn motul nag ñu lay jaajëfal waaw bi maa ngi leen di fay di leen euh, xam ne dal leen ak jàmm raay yow tam noo lay nuyu bu baax man may Mignane Sarr Je suis président commission des sages au niveau de notre parti, ici à Nianing, à Terre. Euh, yéen nag ñu ngi leen di dalal ak jàmm ñun nag am nañu am nañu mbégte bu baax parce que Luc Nicolaï bu seetee Maguette Sène da koy tuddee làmb fii ci Nianing desewul ñaa waa Nianing dara ndaxte commune Malicounda les vingt deux villages amul fu ci màgget deful dara foo ci dem am na lu fa màgget def man mii di wax ak yéen man alaaji la màgget moomu ma yóbbu màkk loolu fu ma nekk dinaa ko wax te nu ni ma yóbbu noonu la yóbbu sama moroom mbaar mii nga gis boo gisee mu tudd place des sages c'est grâce à Maguette Sène yàlla ak Maguette la ci li mu liggéey ci dëkk bi ak commune Malicounda ku xamoon ñaning mu meloon dëmb ak tey bi Maguette ñëwee. édition ak édition yu bëree bari nag ni mu amee ren na ay amee noonu déwén. ak déwén jéeg. ñu ngi leen koy ñaan. ñun daal ñu ngi naa ñaan réussite bu baax a baax yàlla defal ñu ko. defal leen ko euh, maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal bu fan ak wér ak wérale. jaar seen tur seen hmm? leen gërëm fu mu lay tàmbalee. mooy bravo Maguette bravo Luc Nicolaï mi nga xam ne moo am xalaatam xalaatam bu rafet njukkal ko bravo sant naa leen gërëm leen wax cadre Maguette nag euh, wax waxaat la ndax Maguette mi nga xam ne euh, moom lañ ko jagle merci na sax lu ëpp li parce que 1960 ba tey xamoon nañ ne dëkk bi nu mu mel politique yu bari jaar nañ fa mais Maguette il a rele il a relevé le defi de ñenn xoolal immeuble boobu ngeen seet ci tali bi ñun dañoo sonal pour am papier da doon jóge fii dem Malicounda di ñu am carte tracée doo am dara élèves yu bari fii tardé nañu. daan bi rek extrait naissance mu apaiser suñu souffrance xoolal dëkk bi fi stade bii ne sama buntu kër la jàkkaarloo man maa chef de quartier bi tudd Birame Faye quartier bi tudd Diamaguène te mu nga accéder ci terrain ci terrain bi dañu doon am problème problème accès ci nawet Maguette moo ñu montel pont bi bien vrai fekkoon na fi benn pont artisanal boo xam ne ñun village waaye ñoo ko créé suñu bopp mais mu ñëw defal ñu pont boo xam ne mën na attan ay tonnes tonnes ton parce que nawet si yoon benn oto poids lourd dootu mën a jàll fii dem fale te concession yi gën a bari ci dëkk bi fii la ñu féete dem ci kaw fii ba Sinthiou Keita Maguette moo de défi boobu Maguette dëkk bi dafa leen doon mën turus mais xoolal baobab pour su fu wootee dañ koy di ko far jama ngeen noonu ñaniñ gore courant baa nga ba ci suñu tool ya suñ tukkeeta courant baa nga ba seen tool ya nga xam ne suñu mag yooyu soo leen yoon tey nee leen courant baa nga suñ tukkeeta ñu nga am seen seen seetaan seen télévision ñu ngay seetaan jënd seen seen réfrigérateur ah di nga ne duñ ko génnewul loolu yëpp màgget mooñu ko ak ñun dañoo gëm màgget màgget la ñu gëm màgget ñun ñoo ko amal bor màgget desatuñu dara ñun ñoo ko ameel bor maa ngi koy sant di ko gërëm te te fu mu war a àgg yàlla ko fa yàlla àgg mu jig koo jig ay mbokk mbokkam Petite Côte ak li ko wër Olof Njaay ne ki ko mën ak ki koy jéem duñu benn kan moo jëm ña lig le 15 mai sëñ Fallou lig li ko laay ka jëlee woon adda jama kun Casamance delloo si ko Ndakaaru ànd ak moom ni ko jàmmi Sénégal laa bëgg waaw lig def ne fukki fan ak juróom ci weeru mai laa jëm ñani muy lig traditionnel teg fa ñetti million ñun sëñ Fall lig ni mu ni ndey faatu Adama Jali ndaanaan bu mag bi nga xam ne lu may def ak xadi gis daan waxi Ama Baldé mi nga xam ni moo war a dajeeg Modou Lo day dikk pàkku si ñu ni nit mu ni màggat seen meeru Malicounda ndaanaan boobu nga xam ne département Mbour moo ca rafetal ab liggéeyam gëm président Macky Sall waaye gëm Petite Côte moom la Luc Nicolas di delloo njukkal ànd ak waa ñaan dégg leen seen baaraam ma dem te ñëw jaay gaay yi Luc Nicolas fu la ndaanaan di jaar xaw ma ko c'est ça la réalité ba mooy aar ndax loo mais